Seydina Fall Bougazelli ñi ngi ko jàppe woon ci benn station service bu nekk ca Ngor mu yor ab saag bu fees dell ak ay faux de banque ca boobule arrestation gendarmerie section de recherche yi dañoo jëlaale woon seen temps ngir firme waale boobule seen ngir benn weddi du ca am ginnaaw bañ ko arrêté moom député bi mu xam ni am na soxla su doy sëkk ak yoon ca la sax commencé di indi ay lay ak i di weddi bu sukkandikoo ci moom nag nee benn waay bu ñuy Malick Samb moom moo ko teg dil moo ko teg tegal pièce tegal ko ndëgg sërëx gi ba gendarme yi jàpp ko waaye lu jiitu arrestation Seydina Fall Bougazelli gendarmerie section de recherche bi ku njëkk a teg loxo moo di Malick Samb moom Malick Samb nag biñ ko jàppee ak faux billets yi gendarme yi laaj ko mu ni leen Seydina Fall Bougazelli moom moo nekk fournisseur am ci noonu la takk der yi kompaloog moom ba fexe ba mu jox rendez-vous Bougazelli foofe ca station bu Ngor ci noonu la woo député bi ni ko dama sox ay faux billets de banque yoo xamante ni dama ko war a écouler dugal ko ci marché bi Bougazelli daal koy laaj fu mu nekk mu ni ko maa ngi ci station bu Ngor ci noonu la Malick Samb daal di ànd ak gendarmerie section de recherche bu Colobane dem ngir fekkee rendez-vous boobu rendez boobu noonu moom mooy nekk arrestation Seydina Fall Bougazelli ay minute rek weesu Bougazelli daal di egsi ci fi ñu joxante rendez-vous akub otoom ci noonu mu wàcc ak saagam génne ko daal di fas yéene def transaction bi moom ak Malick Samb. bi ñu demee ba mu commencé di génne xaalis bi di ko jox ci la gendarme yi dal di wàcc dal di teg loxo Bougazelli ci vidéo arrestation bi sax ñu ngi ciy gis Seydina Fall Bougazelli di wax wuyaay yàqu na ci ginnaaw arrestation bi la ko gendarmerie section de recherche daal di koy yóbbu foofee ca gendarmerie bu Colobane ngir ab audition ginnaaw boobule audition yi daal di koy bàyyi mu ñibbi këram ñu jox ko ab rendez-vous ci lendemain bi. bu ñu xëyee ci suba si Seydina Fall Bougazelli daal di dem wuy ji buy jee ba pare nag ñu daal di koy interroger daal di koy libéré waat bàyyi ko mu ñibbiwaat këram. waaye ba léegi ñu joxaat ko beneen rendez-vous mu war a wuy ji ca ëllëg sa waaye boobule convocation Seydina Fall du ko wuy ji Bougazelli dafa daw dem Touba. biñ ko laajee nag lan moo taxoon mu daw dem Touba moom mu doon xamle nii rek dafa xawoon a feebar gendarme yi daat koy joxaat ñaareelu convocation waaye Seydina Fall daal di defaat beneen faux bond demul wuy jiwaat gendarme yi section de recherche bu Colobane ci ñetteelu sax convocation bi ci lay dog di dem wuy ji enquêteuru section de recherche bu Colobane ci boobule audition mu def benn face à boo xamante ni tax ko gudd ak enquêteurs yi ñu daal di koy bàyyi mu fanaani waat këram waaye teewul dañ ko convoqué waat pour une quatrième fois waaye bi la yoon Seydi Mohamed Bougazeli du ñibbi këram ginnaaw audition bi gendarmerie section de recherche bu Colobane dañ ko fëgg ab garde à vue boobu mooy nekk guddem ku njëkk bu mu fanaan foofee ca section de recherche bu Colobane